Baye Djili maa ngi lay fay. boo demee coono. sant Serigne Touba bu baax. waa Malika. waa Malika benn. ana waa benn ñëpp a ngi fa. ana waa Yëmbal. waa Yëmbal waa ñëpp a ngi fa. incha allah ñëw fii Kër Sega. seen xarit seen doomu nday euh, di Alioune Mbaye Nder numéro 2. di def open press nga teew ci sa diggante ak Alioune Mbaye Nder lan la. waaw en fait maa ngi nuyu tund Tiwaan bi yëpp. Kër Ndiob Kër Bakar Kër Baba Alima Kër ma Kër ma yëpp maa ngi leen di bégee. tund tund tund Tiwaan bi yëpp. ndax fii man nuyu naa fi yàgg nañ maa ngeem may bëre si waa Nder nag kenn la ci man su ma doomu nday ñu bokk écrit bokk lépp di xaacaloo di dóorandoo yaakaar naa ne bu amoon open press fii ba Makka damay dagg bee dem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam da koy di ko ñaanal ndam ci barke Serigne Saliou bi ma yaakaar ñu bokk ko yaakaar yàlla na ko yàlla suturaal ci bisu le douze bi mu daan Batista jël bu amul benn werante incha allah rabi. waaw nga gis Batista taay bi ni mu toll. boo xoolee moo ëpp moo sut Alioune Mbaye Nder mais Alioune Mbaye Nder moo ko ak façon bëre bi Batista di bëre boo ko doon conseillé nan la mën a góorgóorloo ci combat bi ba am ci ndam. ku daan naaru ghetto daan ogis daan ay ndaanaan yu bëree bëri ci laamu Nder. dama ne xamaguñ ko parce que mbëru fii la gars jàpp nañ ko benn ngaa ko wala ndeer dafa dafa dafa ràññee booy yi te yëpp da leen a daan Batista mu gën a néew ci ñun bëreel pour nga dégg wax ma ban adversaire bu nga xam ne tey am na euh, ëpp na dayoo Batista ëpp na ko dayoo ci ñun bëreel doo ma ko wax. xanaa avant moo nekk benn baraak mais bi mu nekkee benn baraak yooyu ñu yaa ko ngemb di ko indi musul am adversaire bu nga xam ne moo daa daa daa toll ni Batista ñu am ñëpp ñoo ko supérieur. Batista xeex ñëpp xam nañ ni fooram la da ndeer boo xoolee xeex bi Batista moo ko gën a mokkulee xeex boo ko doon bëri digal ci combat bi di nga ne ko mu taxaw xeex ak Batista ndeer man kuy xeex laa ko yéene ndax boo ñee pour xeex mu jàpp la daan la làmb jeex Batista bu loxoy jóg ndeer di ko daan lu leer laa la wax ku mënul bëre rek moo fay nekk di xeex jëmale a de mais ñi mën dañuy ñëw rek prouver dem yow foo toll man man maa ngi nii amaguma combat promoteur yi nag ñenn ñi maa ngi déggante ñoom mais nee nañ doonoon ragal tey wax sama combat ñu naan nii ak naa mais man dinaa defar sama ngan di déclaration incha allah rabbi Prince maak moom à vie pour dire pour ñu am bu ñu inquiété wu ci loolu wallahi bu desee moom kese promoteur bàyyi naa bëre damay ñëw def reporter loolu man maa ko wax. dina liggéey si wasaare allahu rabbi ma ci dañ kàddu googu ma liggéey si wasaare. wasaare laa dem dara ma nii naa est ce que du ma commencé sax comme ñu ngi daw te ñëw jiiri. lamb lamb da laa mel na ne wasaare. wasaare daal fa la affaire bi nekk ñëw naa. Adama bu benn baraak ndeysaan Tony Kaye borom kër mbir ci loo ne. waaw maa ngi lay siyaare baa jili waa ñu yem jàmm bu baa a baax alhamdulilah. tey euh, Alioune Mbaye Nder numéro 2 di def open press nga ñëw fii seen diggante yéen ñaar lan la. waaw sama grand la sama père la sama lépp la que moom ak Tony bu mag woon quoi sama grand bi yàlla def nag moom mu ñëw daanaka sax li mu seex ak moom seexu ko mais moom a grand grand bi la woon damay gis tamit samay mbir da ciy sonn quoi sama grand la moo tax bu woo doon maatam sax dañ ko fekk tey boo xoolee ñun fi ñu amuñu temps sax mais bu woo doon maatam dañ ko fekk si tey nga gis muy bëre ku mel ni Batista numéro 2 nga xamante ne ndaanaan la ci làmb wala Batista numéro 1 ndaanaan la ci làmb gis nga ci li nga xamante ne jot na cee jóge ñuy bëre nan la mën a def ci combat ba génn ci moom waaw ndeer moom ndeer moom kenn du ko kenn du parce que miin na affaire te ku ko xool xam ne mu ngi si à forme liggéey na li mu war a liggéey lépp Batista tamit champion la di ñaan nag yàlla na ko yàlla ndeer ndeer yàlla may ndam kaw ndeer si ndeer quoi ndeer yàlla may ko ndam lu gaaw xam nga lu sedd guy quoi parce que xam nañ Batista bu baax xam nañ ñu ngi koy daane liggéey nañ loolu bu bëre. lan la koy liggéey. daan naan la ci bëre daan naan la ci wàllum xeex. mais xam nga lu mbay ndeer lu mbay ndeer mbapat la jëkk def béréb ndeer ku ko xam si mbapat yi nga ko xamee kon tamit bu ñëwee si arène bi day mottali rek mais ndeer mburu mbapet la moo gën a mbapet Batista bokkuñ sax bokkuñ sax naa si yaakaar lool combat bi am naa si yaakaar lool lool. bëre door bi foo ci toll. waaw ñun am nañ combat le vingt. yaakaar man ak Boka bu parcelle parcelle mbooloo quoi. Boka bu parcelle mbooloo. Boka bu parcelle na. waaw naa dégg naa njaago bi la de. <laughs> nee na nee na xam njaago la may toggal mais man ruuj ba mu suukar laa koy jox ruuj mu suukar. mooy loolu bu ko mooy loolu aw yoon la rek mu war a jàll la rek. jaajëf mais du làmb de. gisuma ko de man du làmb. le grand champion. alhamdulilah euh, mbul lañ koy wax mbul. mbul waaw. bëri combat. waaw bëri na. ban ci ban dëkk. koo compter. Ah. waaw région yi pare si daanaka fi ma demul bëriwul. yan ci làmb ñoo xam ne xam ne si bëri na. li ma la booy xool booy xool. bu dee naa ko. arène amatul ku ma bëreel parce que gars yi amatuma ku si arène bi ñu ngi dox sama combat ba sonn mais gars yi dañuy daw waaw mais toj naa làmb ji nag toj naa ko fu ne na ma gars yi jël quoi ñu bëre. maa ngi écrit daara ji Tiwaawan. daara ji Tiwaawan daara ji Tiwaawan maa ngi bëre onze combat onze combat sept victoire. sept victoire. sept victoire waaw. waaw ñi ma daan jëru ma leen di compter. waaw benn nii la am trois deux défaites ma waaw yooyu yëpp weesu ko quoi man fi mu ne nii amal la wax dama bëgg a mbëri jël ma ñu bëri. léegi kan nga daan parce que ñi lay seetaan faw nga lim ñi nga daan ñu xam ci ban catégorie nga bokk. waaw bu ma waxee kenn rek mooy maanaam mbër mi féete na boor ñi ma daan si arène bi bëri na ñi ma daan si làmb limaloo ma ba léegi de. waaw dama lay limal benn rek. Isma Jara ku ko daan. Isma Jara bu kees ku ko daan. kooku amatul koo xamante ni maanaam warati nga koo bañ si làmb ji voilà. actuellement nii promoteurs yi ñu lay contacter pour nga bëri. waaw instant bi ñu ngi instant bi gis naa ne état champion. bi moom gars yi ñu ngi wax mais ñu ngi si daal. Hmm. waaw ñoom xamuñ. waaw instant bi dañ ñu ngi may jox ay combat mais sooteegul daal. promoteur yi eh, nga koy def. Sidi Diakhaté Sidi Diakhaté daal moo ngi. waaw Sidi Diakhaté mu ngi dox sama combat quoi. promoteur Dakar yi bu ñu di nga def ni di juge Tivaouane dem Dakar bëri. du problème fii déggoo li ma la wax sànq mooy li ma la wax rek maanaam dañoo toj àll bi dañ ko gis nga dañoo yew ay nag ba amatuñu fi place bi ñu ko yew nañu gaa yi jël ñu bëre loolu gis nga lii Alioune Alioune Mbaye Nder nii ngeen gis rek bàyyi leen ba jour combat ba ngeen xool la indi esat Tiwaawan yëpp dinañ dugg stade incha allah. jaajëf Samb yaa ngeen jëf Samb bëgg xul. jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi tey ñu ngi fii ci Tiwaawan ci dëkk bi ñuy wax kër Séga euh, kër Njom Njëga kër Njoba ñu ñëw seet si fi champion bi nga xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy Alioune Mbaye Nder Alioune Mbaye Nder na bari na jollale yoo xamante ni def na ko ci làmb mën a bëreem ñiy seetaan làmb kenn du ko natable parce que bis bi nga xamante ni gis naa ko mu ñëwoon fële ca stade Demba Diop doxoon ca diggante moom ak xale bi nga xamante ni euh, mooy naaru gëtoo gis ngeen keroog bi naaru gëtoo simmeekoo champion yëpp ñu nekkoon ci làmb dañoo dar seen gémmiñ jàppoon ni am na bis bu rëy mu génn ci gis nga xale bi nga xamante ni tey moo nekk belende bu dóor dóoraat musul am defet moom moo ko daan bari na ay ndaanaan yoo xamante ne ci làmb jot naa laaleeg ñoom tey muy dox ci combat bu rëy bi nga xamante ni moom mu ngi bëreeg moom moom euh, Alioune Mbaye Nder dox ci digganteem euh, Batista Batista nekk njool moo xamante ni neexalut benn ndaama te la père Birahim Ndiaye daan wax bu ndoo njooli wexee ndaama yi génn làmb ji ma lay nuyu di siyaar ñu ñëw sa dëkk fekk fi say mbokk fekk fi say am di njàmb gis say njagañaale ñëpp ñëw rawatina armée bi nga xamante ni benn baraag la jóge ak ñu jóge Dakar ñëpp ban message ngay lancé ak combat bi nan nga koy waajee sa diggante ak Batista. waaw bisimilah. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi. waaw. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. waa ndax tey xam nga temps yombul. tey doomu aadama yi nga xam ne tey ñëpp dañoo bàyyi seen temps ndax jëmm ju xeebu ji amuñu seen fay. maa ngi nuyu sama doomu nday armée xam nga tey jot amul gis nga gars yi nii moom mu ngi déplacé ba Dakar sama rakk Tony Junior gis nga fu ne la nit juge tey ndax bés bi yaa may dégg bàyyi jili aussi ñu ngi lay nuyu di nuyu waa kër Ndioba comme ni ma ko doon waxee rek kër Bakar kër baa Baba Njaxate waa Tiyawan kër leen mi na mbayeen ba kër Madiagne waa Daaru Fall Jogo xam nga di nuyu sama doomu ndey ki Cheikh Tidiane di nuyu sama yaay Ami Niang di ko wax ni ko ñaan yi ñu ngi koy gis bu baax di nuyu sunu grand ki Sooru Mbay di nuyu ñoom Maodo Diop waa campus bi di nuyu nag sama njaatige Talla Diop parce que lii lépp nag bala ñoo wax sax Talla Diop moo war a jiitu ndax tey moo ñu fekk si ay xat-xat jëlee ñu fi nu nekkoon andi ñu benn baraang mbooloo te bàyyiwuñu benn yoon nag tey jàpp ñu ba tey jii bu ñu demee ba dégg daal si làmb ba tey jii nii grâce à Talla Diop di nuyu nag encadrement benn baraang mbooloo bi yëpp ñoom per fay coach su ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee du ma matal maa ngi nuyu sama gars yi xamante ni ñoom bul ñoom caat bu kër Cheikh gars yi ñoom liy coor. Pape Koulé sama rak la sama rak la dafa nekk tu tànk ma di ko yar làmb ba nii mu toll. ñu ñëw ci bis bi. Batista lan moo la dugal ci moom. waaw Batista dinaa si ñëw. dinaa si ñëw di woo nag ci autorités yi nekk biir Tivaouane gépp combat bi bàyyi jiili corona bi moo ko teewoon daaw ba ren soxla nañ lay jàppale. te ñun fii buñ fi jugee mbooloo moo fi jugee te xam nga ni de départ fi Tivaouane jëm dakaar mbër mu jëm fi mu dëkk képp moom moo koy def parce que dafa metti ñuy départ fii di yóbbu mbooloo Dakar mbooloo boobu nag moyen moo koy def te moyen boobu noonu ñun nekkul lu nu man lu ak wala lu nu am si nit ñi leen ko yaakaar nañ si ñëw jàpp pour bés bu man a baax ndax làmbu Tivaouane daf ñu intéressé parce que xam nga fii tey fii nga ñëw ñii tey boo gisee ñu andi la am na bayaal yoo xaye suñ la fa yóbbu woon mooy centrale biir dëkk bi nit ñi duñ fa xaj mais affaire bi yëgaluñ ko kenn dañoo ñëw làqatu fii fii tey man fi laa dégg daal yi gars yëpp fi leen jaar armée mii nii bëre si na fi kii bëre boo gis si ginne bëre na fi ñoom caat ak ñoom luy coon lu fi waaye deful fi amul fii mooy arène Baye Samba joob yàlla na ko yàlla xare àjjana di nuyu nag euh, ñëpp di nuyu sama doomu ndey Pape Diop Brésil am ma fayam jàpp na si bu baax. di nga ci ñëw dinañ ñëw ci gërëm. mais damaa bëgg nga ñëw ci combat bi parce que da nga maa dégg da ngaa dégmal combat. Euh, le 12. sa diggante ak Batista. lan moo la dugal ci Batista ak lan moo tax nga yab Batista ba jël. gis nga bàyyi ji man mbëru gox laa. su ma jugee di am ku may sóoraale si lamb rek. bay boo ma tekki xaar. man xam ma loolu. man xàmmewuma bu nu bokk ak bu nu bokkam. déggoo ma de man dama si def dama si def kaani ris si bëgg ma ragaluma lu forox. xam nga Batista mi nga jël. billaay walaay bi mu bëre ay combat bi mu bëre grand combat maa ngi bëre combat cent mille. mi xam na si dara. weer na bi mu bëre grand combat moom. combat cent laa doon bëre di départ fii nag. kon su ma demee ba ba rayante ba egg si kaw ba may ma loxo. non bàyyi ji bu baax a baax. lan moo tax nga ni moo la may loxo. ma de bi muy bëree grand combat ak léegi def na dix ans te man booba nee naa la maay bëree combat cent mille. mais gaynde mer la ma loolu. man lu ma def si làmb rek dama ko xeeb ah, parce que li supporters yi gis nga ñii nga fi gis. nga ñii fi gis nii. gis nga ñii fi gis nii. xam na ni man bëreegu ma. bëreegu ma de barke sëñ Bamba. lu leer nag laa la xam nga baa jili fi ne xaw nga yéemu si man tuuti si bëre. mais ndeer bëreegul. parce que dafa am fu ma mbër eggagul. te bëgg nga Batista yegg la. billaay walaay xeex bi muy woote noonu na xeex ñëw. Ndiol ñemewu taxaw sampu jaaga jàkkaarloo Batista loolu moom ñemewu. naari gëtoo bin ma ko waxee entraînement benn baraang bool damaa meroon keroog. ba jooy jooy xàcc mu ngi ni barke sëñ Bamba. ma génne cent mille francs teg si table ji ni leen ku mën na teg dix mille kenn ñu ñëw te teg. man sëtub daali Ngom la ak Ngom maam Maseer mooy sama maamu famille Mbaye laa bokk ma bokk du ma ragal. man samay maam yëpp dañoo bëgg làmb samay ndijaay barki Seydina Mouhamed sama ndijaay bi nga xam ne moom laa doon yóbbu làmb Cheikh Ngom sama maa koy ñaanal moom ak samay waajur sama ñoom yaay ak sama ñoom maam ñëpp yàlla xarel àjjana mais dama la bëgg a xamal kooku su ma musa ànd ak moom dem si làmb danaa mu mbër boo amee dara looy tiit maa mun ma aal ma ngembali mooy sama taaw maam bu góor mu si moom la sama yaay topp kon mënu ma am lu may tëj wallaahi déggoo ma de ragaluma loolu ban tànk lay jiital man tegee baax na man xam nga lan rek la koy ñaan na ñëw si làmb ji damaa koy xool waxal ak doomu ajoor ajoor bi ngay waxal mbëru gox nag nga jël te mbëru gox bëreeg moom yombul yaa may dégg ku ami mbokk nag nga jël li ma lay wax barke yonent bi boo ragaleelu forox baye boo nga xool leneen man dama siy def limoo déggoo ma du waaye man saa waay mooy loolu man baa bàyyi ji boo ñëwuloon fii tey mënoo xam ne tey fii laay ngemboo ndax mbooloo bi ma indi Dakar moo tax loolu noonu ñu bari bu ma leen nee lii parce que loolu man maa ko liggéey ak nit ñi nit ñi dañ maa bëgg barke Seydina Mohamed sama benn copain Matar daf may wax ni ma mënuma ànd ak yow dugg si biir dëkk bi man ko lu tax mu ni ma parce que yow xale bu ndaw sax boo ko rombee da ngay taxaw man ko man rus na maa romb nit te nuyu ma ko man loolu mënuma ko. dëgg la barke noonu la ma yàlla bindee fii dañ may wax naa ma doo mbër ndax lan sa xol dafa rafet. mais loolu ak làmb du dara. combat bi ñaata séance ngay entraîné par jour. combat bi deux séances rek lay entraîné man loolu. boo xëyee noonu. matinal bi damay xëy physique lu tàng jër bu ngoonee ma ñëw contact ak gars yi takk gan. ñan ngay contact. gars yaa ngi nii. kii champion ki drapeau chef de l'état mooy présenté Thiès soixante-seize kilos yi chaque année kii moo doon dem laat aan waa Thiès ñu ngi may dégg. est-ce que comprendre kon man ay mbër yoo xamante ni danoo am talent si làmb te benn avant li koor gi armée dafa am lu mu liggéeyee man si koor gi loo xamante ni daf ma ni booy Mouhamadou ma sama xel dal na bu la neexee demal nga ñibbi sa kër dallu ji. wér na. li nga yor doy na ma ma ñëw nag ñoom laat ni ma loolu ñun dan ciy def suñu yéene ñoom Pape Khoule gars yi am ma seen fay man déggoo ma barke Seydina Mohamed man dongalu xeebu laa mais li gis nii man nit ñi nit ma def man loolu moo ma sunu benn grand boo xamante parce que fii si dëkk dëkkaan yi danoo def benn euh, groupe boo xamante ne ànd jàppale sunu mbër yaa may dégg Pape Samb nag mu nekk koo xamante ne Kër a dëkk ñu tànn ko si biir nit ñi gone la mais xam nga loxoom dafa set ñu jël ko ni koy yaay sunu président Pape loolu nag ñu nangul la ko baax am si contentement bu baax ndax yow. loolu rek moom moom la la nit ñi mën a ndax Batista loolu napp ko. di nuyu ñëp ñëw mais Batista loolu napp ko de. di nuyu sama patron Pape Samb ca Mbour. billaahi deseelu ma dara. ñëw sabar bi lii lan la. sabar nga teg sabar. ñi ñoo dàq tëgg Sénégal. déet waay ñoom Tidiane. ñoo dàq tëgg Sénégal. barka Alxuraani Karim. gis nga premier jour bi ma leen yóbbee stade Iba bi nu tëggee daa am ñu ñëw si man ne ma yow ñii fan lañ dëkk si ban orchestre lañ ma leen pourtant man ak ñoom a dëkk ñun ma noo Kajoor lii waru faa man am man ko barke yoonte bi la fa laaxoo ëpp la fa feeñ. kon na leen gars di jox si programme yi ñuy tëgg yaa may dégg baax le douze ñoom ñoo le douze ñoom ñoo koy ko te ñoom bu ñu tëggee damay am aal barke maam Seera Faal bu ñu tëggee damay tàng jër ñoom xam na ni ñoom. xam nan bu baax a baax. ñu bàyyi la nga woote. waaw maa ngi woo waa Tivaouane gi yëpp di woo waa département bi yëpp waaw di wax ni seen doom moo aye seen jarbaat seen rak seen mag seen xarit ki nga xamante ne tey amul kenn ku ñu te yaakaaru kenn ku ñu yéen xam nga di leen woo si combat bi le douze comme ni ngeen ko daa defee mais ñun bàyyi ji du ma la nëbb dëgg sama supporters yi booy yi ngay seen nii lu ndeer doon tey ñoom la duma ma la nëbb dëgg booy dañuy jaay seen ginaar ndax man passé ko esat ginaar foofu buñ ko bàyyoon mu jur day doon day doon bëy bëy bi bëy bi day doon xar xar bi day doon nag kon tey bu demee ba booy amuñu nag grâce à man sama booy lu ma barke Alxuraan Karim bàyyi ji nee la nee la man bu ma nekkee fii di sant nag sama jabaru grand yi ñoom yëpp bàyyiwuma kenn ak sama yumpaañ yëpp waa famille Ngomeen bi yëpp nag am ma seen fay dama wax sama dëgg nee naa la sànq si kër gi ñu la su ma nekkee fii nii damay añ ba njogonal di ñuy nag ñoom Maodo Diop xam nga gars yi xam nga yaa ma gën a xam ñoom lewis ñu ngi fii ñoom rek gu ndaw gars yëpp soxna turam yi barke alquraani karim ama fayam kii ngay seen sama ñu bañ la mais dama ne day dem mbooro bii fa paanu jën ñëw def ko si booyam Modou Fall xam ne li may wax yaa may dégg baax baax man ku ma defal lu baax dama koy wax man ndax man lu baax rek laa gëm te man man lii ngay seen bu ma sañoon damay defale su ma sañoon baa ji damay defale te kenn du ma defal mais nag xam nga lu si mën mënu si ko wax soxna Touré day jël ab booyam def si jën woo xamante ne jënu lewet billaahi wallaahi tallaahi ak njabootam firital ma ko ba mu baax sa guddi bu ma reeree ba heure boobu noonu mën ma mbër xam naa heure bi ngay xiif yaa may dégg baax kon bu ma amee doole ba mën a dem di bëre ji Dakar ñoom jàpp nañ si sama waa famille am ma seen fay dégg nga baax a baax sama maam nag dama koy ñaanal baax yàlla na ko yàlla xare àjjana mook sama yaay ak sama ñoom di yaay ñoom ñëpp ak waajurum foofu man di fekk rendez-vous bàyyi laat rendez-vous rendez-vous kañ la le douze jox dig daje ñëpp képp kuy supporter Mbaye Nder waaw mu ñëw waaw le douze moom dama la bëgg xamal maa ngi woo sama mbokki ajo rajo yëpp damay lim dëkk nag man. dayoo la ko fële. dégg nga maa ngi woo waa kër Ndiobo waa waa kër Bakar waa kër Baba waa kër Malé waa kër Minam Mbéyeen kër Madiagne Beyti Njaxate xam nga waa Selko waa Thialé waa kër Malamine Parba am ma seen fay. képp koo xamante ni ñëw nga fi rek teew fi waaw maa ngi nuyu nag sama soxna ndax wax dëgg fa yàlla bàyyi laat bu la nëbb damaa fekk nga xamante ne tey moom laa bëgg sama xol ma ni ko coppet jël ko téye. xolo da ngay gërëm jabar. non mënul ñàkk. billaay di sant nag sama ndijaay Malick. damaa fekk koo xamante ni moom laa bëgg sama xol ma tànn ko téye. xoolal billaay walaay talaay lekk gu fu mu gën a baaxee la koy def. kon baax na boo nañ bàyyi ba di jugee ci làmb ja bu ñu ñëwee toog. yoole yoole bi ragaluñu loolu. jërëjëf acca sama gars yi ran jërëjëf mbokk yi ñu leen toog di daje ba léegi